di ñaan sunu borom boole ñu jéggal ñaana sunu directeur général Hadji Bougane yàlla doole ko jàppale dolli ko sutura dolli ko sàmm sàmm njabootam jàppale ko ci biir ak ci biti yi nuyu sunu techniciens yi ñu nekkal muy Tafsir Maba ak Hadji Madani ak Baye muur ak Maxtaar Tafsir dañuy del si waat rek ci diggante bi ñu nekkoon démb ak yéen muy diggante yonent Yàlla Muusa ak na muy diggante njaboot ak kilifa day continuer ba àdduna tukki waaye na def ko laaj ne ko yow bi nga fi jógeeg léegi lan lan moo firnde ne yow danga dajeeg beneen yàlla ba mu yónni la lan mooy firnde bi fekk yàlla waajal na ko looloo tax gis nga ñi nekk bitim réew nañu góor góorlu bu baax moytu yàq ndax delsi gee tax ndax ki def juróomi at ci àll bi wala fukki at soo delsee ba bu la nit xool rek mooy sa fukki at ana résultat bi sa résultat wu dix ans nag mooy li nga indi baa la nga fa bàyyi soo indiwul dara nag lay sa toogaay da dul yomb parce que réew maa doy waar ñu ni la nga ñibbi moo tax bul yàq bu benn nit ne xay cëpp la nga dajale nga jox ko di ko perte bu ko def bu ko yemale ci jigéen déedéet jigéen nit bu mu liggéey pasar pasaree parce que boo ñibbisee danga war a lay sa tukki la koy dëgëral nag mooy li nga indiwaale moo tax yonent yàlla Muusa aw na ne ko yow da fi jóge ay at dix ans am na ko ci àll parce que huit ans la sàmm contrat bi ñu dolli ci deux ans muy muy dix ans firaw na ne ko waaw sa dix yi àll boobu loo fa jëlee ak sa wax ju bari ji yàlla ma yónni wala lan mooy firnde bi kon mabba bu jógee Sénégal dem États-Unis nekk fa wala mu dem Gambie nekk fa wala mu dem Mali nekk fa wala mu dem beneen réew nekk fa war na su ñibbisee war naa feeñal lenn ci la ko téewoon bitim réew lu am solo la ku tukki indi baa ñu xeeb ku tukki indi ti ku indi ñu ne la indi pexe amul baa ñu xeeb kon loolu lay firi Moussa nag ne ko lii laa indiwaale fa araahu ayatal kubra li ma indi kaam bi ci la ne mu ne ko fu mu fi ne mu sànni kaan ba mu soppale ku jaan alxuraan na ko nettali du xisa du xisa maanaam du nettali ni lu yàlla waxal boppam la loola nag naka la ko firaaw na gis ul yëkk mu nangu waaye xelam daa dem ci dém bi Muusa fa kadaba wa asa xam nga koo xalaat fi nga jaar moom doo gaaw a nangu maayam fii la nekkoon fii la jàngee ñoo ko yar ñoo ko lii kooku gis mu di ko wax di rek maanaam xeebeel la dugal fi la nekkoon fi la jàngee ñoo ko yar ñoo ko maanaam kon du kenn ci ñun te sac la tiitër la amul kuy gis ci àdduna bi mu am dara te la mu am amul fu mu jógee amul koo gis ci àdduna bi may ya mu yor am na fu mu jógee parce que meew moo gis am na ci gàtt buñ ko rattee dama ne meew moo gis am na ci gàtt bu nu ko rattee mu ne ko nag lan mu lan mooy sa résultat au voyage mu wan ko mu sa mu jox ko yedd woon fa kadaba wa asa firawna daal di ne ko waxuloo dëgg gëmuma la gëmuma la parce que waxuloo dëgg fa kadaba waasa asa et pourtant résultat am na Maba ñëw na indi na cent milliards ñu ne ko da koo sàcc lii liggéeyoo ko ci dix ans fa kadaba wa mais coxor day dugg gis nga gis nga madaani yenn wax yi yenn wax yi du dara lu dul ñuul ñuulu xol rekk la mabba xamoo dara aayoo te yow ku lu yóbbu fa mabbay def ci émetteur ba mënoo xam ban tànk ngay yéegee suñ ko fayoon mënoo koo taal dangaa iñaan ku iñaan nag yàlla nee na du mën a génne ci dënnam wax ju baax ku iñaan du mën a seedi yiw moo tax da daan wax moom sunu borom ne wala tëgtumoo shahaadata yow ma daani lu baax li nga xam ci ba bul ko nëbb ci sa xol daf lay gaañ wa man yëgtumaa fa innahu xal ba ku xam lu baax war koo wax nga nëbb ko denc ko bañ ne doo ko wax mu jural la feebaru xol mooy ak naa fekk nga dee dem ak moom safara jaru ko waaye itam olof day wax ne loo iñaan iñaan nangul lëg ñett nopp yu gudd mën a daw ak muus loo iñaan iñaan nangul bukki lenn bëgg yàpp cérama loo iñaan iñaan nangul ñay lenn ponkalaayam loo iñaan iñaan nangul gaynde lenn soxoram ak dooleem waa ndem yàlla sedd rabi àll yi ku nekk ak ba doom aadama yi xam cër yi xam ni bukki yàpp rek la bëgg lëg mën naa daw muus na nopp ya gudd na ñay rëy na gaynde bari na doole soxor na segg mën naa fàdd ak saafaando mais yooyu yépp nga xamal ko seeni borom mais nangulal nangulal màbbal li ci moom yow madaani nga féex ko defee nga féex waaw ah, boo ko deful doo féex moo tax mu lànk mayu njaboot fa kadaba wa asa xanaa xamoo ne am na ñoo xam ne boo toogoon ak ñoom tey di leen seereel ah muur de ku baax la ku jàmbaar ah, waaw ah, waaw waaw duñ ko nangu sa cinquante pour cent sax duñ ko nangu waxuma la cent pour cent aussi danañ fexe ba xajamal ko dafa am ñu mënul supporter nga wax mbaaxu nit ci ay kilif am na kilifa yoo xam ne boo wax mbaaxu njaboot ñu ignoré la parce que duñ ko nangoo dégg mais dara gënul nga dem ci Macky sàll nga seet benn njabootam bu jàmbaar ngi ne ko diw jàmbaar la diw nangam dañu am benn daje màbb démb ci Thiès ku ñuy wax Moon Njaay moo ko organisé muy daje daara suñuy mbokki murit lañu man maa doon def waxtaan ba mii déglu la ca xew dafa am benn xale boo xam ne baayam a ngi toog muy Mor ñang di woykatu xas xasaay ku mën a woy doom bi ñu jox ko ku ñuy wax sëñ baara fi ñu toog ñu jox kàddu sëñ baara mu ubbi pour ubbil ma ma commencé waxtaan wi naka la jóg moom sëñ baara xale boobu di sëriñ fàllu ne bërit yëkkati woy way wayu sëñ Tuubaa ba daaneel daaneel ko ci sëñ Baara nag def ci moom xasida bu rafet way ko way wu rafet wax fi mu jaar ak moom fa mu ko jëlee ak fi mu ko indi avant muy ñëw ci moom ni mu meloon moom ak fi tey ni ko sëñ Baara deferee mais loolu ko iñaan mënu koo wax daa mujj ña toogoon ci kii fekkee nga ko bàyyi muur a ngi toog daa mujj jataay ba ña fa toog ñépp seen yaram di daw ma xam ne lu jafe senegal la nit jàngal la di xale ni moom mu jël mikoro di ko way way wu jub te way way yëpp moom ay defoom lay wane ak nu ko sëñ baara faje ak nu mu ko deferee te bu ko bawoon na meloon tey fàqmaan lay doon loolu aayul xam nga yooyu day wane ne yow nangu nga mayu nit bi mu daanelee ba sëñ baara pare ba toog dama ne sëñ baara mu sëgg ma ne ku kii ni nga ko téye bu baax téye ko bu baax ku baaxa a ngi nii ma daani ku nangu mayu nit kenn gënu la surtout ku la sédd nga nangu ne mooma sédd sedd kila defer nga nangu ne mooma defer wallaay ko def kenn gënu la ku iñaan nag jarul sedd ku iñaan baaxul soo ko séddee regretté cër bi nga ko jox borom xol bu bon jaru sedd ku soxor jaru sedd waaye nit bu xolam rafetee fa nga jaar moom mu xam ko day mujj doon sab géwél sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma danoon asgor ku ko lebal lum la manta fay mu fayee la boppam loolu lay dëgg sëñ Seex Mbàkke ko wax ku ko lebal lum la manta fay mu jël boppam tayle la waaye nee na bu xëyee suba ak bu gontee foo ko seen muy dañ dañ lu ma la fayee lay wëri loolu mooy nit mais xam nga ne madaani mii nangu ne lu ma am taf seen ma bala bi may ñëw xaw ma dara moo ma jàngal moo ma lii moo ma laa bu duloon moom ma alko ko Sénégal de ñi fi nangu loolu bëriwul de tey da ngay seet sax nga xam ne yaa ko orienté yaa ko jàppale lu mu am yaa tax mu am ko tey mooy doon sa ennemi numéro un aada Sénégal la gisal politiciens yi ni ñuy def ànd ak nit des années nga xëy dagg dem xëy dem ci journaux yi dem ci rajo dem internet dem télé saaga ko <clears throat> mais am na yoo xam ne ku ko attana def boo nit nga doon nit yenn jaar-jaar yi nit jaar faak yow nga wëlbati ko mën koo def lu ñaaw boo nit nga doon nit mukk ci àdduna manul nekk moo tax nit dafay nangu may nangul may soo nekkee ci bërëb ka fay politique di njabootu Macky su amee njàmbaar wax ko ko soo amee accès ci Macky su fekkee ni sëriñ bi soo amee accès ci moom ne ko jàppal màbba ku baax la su ci bugaan la soo amee accès moom ne ko téyel màbba jàmbaar la mais kilifa la nga xam ci njabootam wax ko ko mu téye ko njabootam ah mais soxor baaxul mais am na ñoo xam ne boo ñëwoon di leen tag ah diw dee jàmbaar la ah, moom day xoolal dan ah mom de pour xajamal mais soxor la buñ non la sa dom jambar la nga nangu dang koy bégé suñ tuddo sa jambar nga bégé ko suñ tuddé sa jambaru dom nga bégé ko kon buñ tuddé jambaru domi jambur budi julit nga bégé ko soko ko wul do julit do tus te gis nga li gëna a nga yé nit ko nelaw lo du soti mënul soti <laughs> nit ki nga nek mom ba mu yew nga bëgg koo nelaw loo da ngay sonn rek mais dootu nelaw manul nekk foo jaar bu jubee mu xam su jubul mu xam loo nar xam na ko loo ko yéene xam na ko day demaale rek yeewu dafa garaaw ma daan gis nga nit ki nga yee ba pare bëgg ndékki ba ko dugg nga ni rubba foo dugal mburu mu fekk la fa ki nelaw la ñuy ndékki ba ko ki doxi la ñuy reer ba ko ki doxi la añ ba ko waaye ki ne xujji booy dëj muy toog booy roof muy roof moo tax fa araaw ayatal kubra waaye fa kazaba wa asa dafa weddi may ya ba pare ko doxal fële ni nga tëral dara laa ci gëmul su ma àdd bara yasaana mu dal ni waaye mu naxasaale xam nga waaxu yu mu waaxu waaxu yu métti yàlla nee na du waaxu de day dawaale jaan gi day dawaale waaye kilifa gi xajamalit du lu bon lum xam ci njaboot gi de soxoram lay nëbbaale soxor ga soxor ga lay nëbbaale <clears throat> sadaqallahul azim <clears throat> eh, tafsir ki moom nee na su waxtu julli jotee élimaan ñëwul est-ce am nga droit am nga sañ-sañu gannaaw màbba mooy imaam te ñëwul est-ce que yow madaan yi nga ñëw ci jàkka ji te mabba ñëwul est-ce que te kenn jiitu am nga sañ-sañu julli bañee julli julli ci dem kenn newul a julli lal imaam sarti julli ajuwul ci imaam day to bu teewee da ngeen di ànd yéen ñaar julli su teewul julli doxi sa soxla <coughs> waaw <coughs> julli doxi sa su fekkee ñëw julli dem sa yoon benn weerante nekku ci kii moom nee na soo amee koy bëgganteel kenn xamu ko nag maanaam danga am ngoro di ko nëbb ndax di ngoro di ko nëbb bàkkaar la wala déedéet du bàkkaar xoolal xam nga màbba lu yonent bi wax bàyyi muur daf ne utlubul xawaa ija bil kitmaani su ngeen di topptooti lu baax ni ngeen ko nëbb ñu ne ko lu tax mu ne fa inna mu ne fa inna kulli di niamatin maxsuudun nee nit képp ku am xéewal dañ la koy iñaanee kon soo dee do xanaa xamuloo ne léegi léegi nga dégg naan dama njëg njigéen lu ma yaakaar mu tas déedéet da ngaa mën a fen rek mën a fen doo nga la jàpp waaw yow màbba da lay bëgg lu ci siiwal te ko dox su ba yàlla dogal ko waaye foo toogal ma daani na nga def sa eh, xanaa ma wax la yow naa sama càmmiñ nga mabba de damay eh, maa ngi moom dañuy ngoro loo ci xam mu ne a ah, jàppal ko baax la fekk nekke ma daani noboon na la denc nobel ga da yàq lépp lu siiw yàqu moo tax Sénégal bu bëri naan dañu njig njigee nuñu parce que yonent bi nee na boo dee dox baax te jotogoo ca nga di ko lijjanti war a voyager yow ma war a toppatoo say passeport war a lijjanti sa visa war a lijjanti alal joo yóbbu su ko ñaari nit ak ñetti yéege yàqu na fa inna kullal si niamatin maxsu dañ la ko iñaane bu ko siiwal ngoro loo ciy siiwal waaye il faut nga siiwal benn caméraman bu ñu am ah kii tudd waaw ah ah yow yow de ah yow jàpp nga ko dans l'ordre koo de xanaa war naa yor xaalis mais seetal loolu wala man mab mab man mab benn waaw ah ndeysaan waa kañ nañ koy seeti dencal dencal lépp luy lijjanti ci lijjantikoogul denc ko soo demee nag ba ñu may la mabba nag ba sëy bi fasu nag nga téléphoné copine yépp ngeen baal ma nag mbir mi dafa bette am naa jëkkër kuñ la may taf seen màbb bu seen TV jeex na waaye ngoro gu wex nga siiwal ko ñépp jot ci moo waral bu yàqoo nga dem ci journaux yi ak internet bi di bind ka saaga rek workat bi la màbb moo mu nekk seen TV ngan lum workat la waaw mais fekk na yow yaa wor sa bopp yonent bi nee na booy dox lu baax nëbbu ko tey yow tafsir soo bëggoon a génn fii dem feneen su ko madaani yëgee dinaa ko yëg su ma ko yëgee shérif na ko yëg shérif bu ko yëgee ñëpp yëg ko shérif trian la kon donc nit lépp looy dox ngoro nëbbal baax na yow rek yaa ndaw si ngeen xam ak wuy jur yam koy séqal su ngeen demee ba mu dëgër ba yàlla dogal li muy dogal nag buy siiw doog a siiw bañ a baax te illa man de ngoro yi ma fi gis mu siiw yépp a yàqu yépp yàqu daa kalaj la def kalaj parce que nit ñi dañoo soxor diggante bu nu yëg yàqu ko mais doomu aadama moo amul moo amul secret Matar tey bu amoon ko bëgg il faut mu siw dana ko door Abdou sàll dana ko door Aline dana ko door keneen mais du noonu est-ce que xam nga ne màbb am na nit ñoo xam ne mën na noo rey nit ti kenn du ko xam parce que nëbb dafa baax waaye looy dugg mu siiw yonent bi nee na léeg mu yàqu moo tax nëbb baax na dara nekku ci soo amee looy bëgg muy lu baax dox ko ci suuf mu dox ko ci suuf waaw ngeen ngoroo ko ba yàlla dogal ko ji nga même ba ci voyage bul siiwal doxal ba say këy toppatoo ba lépp féetee boor nga am sa visa lépp féetee boor nga départ ba yëgg ci réew ma doo ko téléphoné cat du weerte yor sa visa yëpp toog fii di di yëg la far sàcc ci say bagage mu ne mes nga alkoo ngi fi cat du wees ndog du wees départal ba yegg yow màbb soo yeggee gàmbi na woo ma daani ne ko maa ngi gàmbi léegi kañ nga fi ñëw mu ne fan yi ah booy ko nga ne ko lijjanti moo xawoon a takk lii la yonent wax moo tax loolu ngay wax baax na nëbbal sa ngoro ndax mën naa am ndaw si su siiwee gaa yàqal la ko naar bi dafa ñëw Sénégal yegg si rek benn waaye xàmme ko ne ko Abdallah mu ne ko danga maa xam mu ne ko waaw mu tour fourne ba soti barada ba dugal ci mbous mi jóg jiitali xaram dem ñu ne ko na do tay mu ne baax ñu ne ko lu xew mu ni kii toll ci àll ba nana abdallah bu xamé lenen wax ko waxna deug dëgg acca li ñu amon ci waxtu yu jeex na ki doon def waxtaan moy seen mbokk Iran lépp luñ ci jum yàlla ñu ko yàlla jéggal waye lu ci jub rek yàlla nako yàlla def yu soti ko ci aduna bi yëpp ba suba ci waxtu inshallah بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن